samedi 15 janvier ca stadium Iba Mar Diop la ñu fas yéene nag dëggal waxu olof ba ndax moo ni woon jéexaat foo faree doom delloo fa sab loxo waa rent DKR nag delloowaat nañu fa seen loxo ndax deuxième édition drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent loolu waral waa rent DKR indi combat bu mag ñaar ñu lamb di bàyyi xel lool buur siin doomu bawol bi la jël daal di koy boole ak ngeer bu tay shinga waaye yemu fa Ibou Ndiaye ëbbali parcelle la jël daal di koy boole boole ak hôtel Dior école de lutte Manga 2 Agago sàkku xam-xam mu daal di koy boole ak bébé guy gi Mor Fadam réparé rakku marle la jël daal di koy jox Albarka Kayre waaye ñagas numéro 2 Cheikh Mbaba la nekk ñu daal di koy boole ak Boston numéro 2 bu Pape job Boston. ak yeneen i cinq combats yu war a am ci bésu le 15 janvier ci stadium Iba Mar Diop ak Rent DKR entrée bi nag nii la tëddee tribune supporter 2000 francs tribune amateur 3000 francs loge 5000 francs mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay yaakaar naa ne tey ñoo ngi fii si Bargny open press Bour Sine Mohamed comme ni nga ko gisee ci image yi ñu dabu si ko fii ci biir këram nag jël si ko fa yéene waxtaan ak moom mu tënkal ñu li nga xamante mooy préparation bi ak ay mbokkam yi muy woo ak adversaire bi nga xamante bi ni jël na ko muy ngeer bu sab rent deka décroché combat bi di samedi le bi ñu nekk fële ca stadium Iba Mar dañuy nuyu buur bàyyi ko mu nuyoo mbokk internet yi ñu dugg si waxtaan maa lay siyaare buur waaw di la delloo siyaar Modou Anta di la noyu di noyu Mouhamed di noyu senegal di nuyu monde entier di noyu waa Bargny Médina Bawol Réfane ñëpp di leen noyu waaw waaw fii mu ne nii pare nañu ay réglage ka des parce que suuf si mooy deux wala trois préparation bi moom pare na ay réglage moo des physiquement mystiquement tout pare nañu lépp lépp di ñaan yàlla mooy ñu ndam si kawam kese. mu nekk combat boo xamante ne mën naa ne yàgg na ci sa loos adversaire bi nga ko sekkalan yaakaar naa ne moo ngi si leneen yow ba tey nga nekk si combat bi préparation bi est du metti tey mobile de suba ngeer bu sax. métti na trop parce que ku ma ko waxit doo ko gëm. po combat boo jël lu met trois ans ñetti at trois cent xaw ma ëpp na op na ëpp na trois cent xaw ma daal waaw fii mu ne nii préparation bi métti na trop parce que bu dul sama frère yi ak sama nijaay yi ak sama mbokk yi di si jàpp ni affaire yi métti na trop parce que la joxul avance nga pare beneen mbër boobu egg si fii xam nga day métti daal dañ ngay koloo di pare sa combat di ñaan yàlla yàlla mi nga xam ne moom man lépp te may ñu ndam si kawam parce que ñun ñu ngi liggéey ñun ay xale lañu ay ndaw lañu ñu ngi liggéey bu baax a baax ñuy entraîner waaw parce que entraînement moo ñu war sama grand yeeg sama rak yi yëpp ñu ma entraîner li si de ñu seere ko garaawul waaw parce que man combat bee ba mu yàqoo dama doon bu ñu ma joxul avance du ma bëre ñu ne ma garaawul addina amul solo ma maintenir sama combat ñaan yàlla may ma ndam si kaw ma xooli leneen waaw. ci adversaire bi nga jëm tamit di nekk adversaire bu coriace comme adversaire bi nga bàyyi ngeer bu sab bëreeg ay linsey numéro 2 bëreeg ñoom papi général bëreeg Ndiaye Malick bëreeg Fëgala mujjee bëreeg Libidoor bu Ngunjaan est ce que xam nga ngeer tey bu ma la ko doon laaj. waaw xam naa ko parce que yàgg naa ko siifur yàgg na maa siifur ay yu bëree bëree bëri waaw ba muy dugg si làmb ba muy dem na booy bëre grand combat te dugguma si ga gaa sunu grand frère la mais bu bés ba itam ceru grand bi dañu koy tegi teg ko fee wane li nga xamante ni moo ñu indi si lam parce que ñun xale yu ndaw c'est première fois ma bëre koo xamante ni moo màgg ay samay morom laa mos di bëre yow gis nga samay combat euh, combat yu xaat laa doon yu tàng jër mhm. mais bu ñu demee booy lii itam dañuy jàpp ne suñu nawle la ñuy bëre duñ jàpp ne grand frère la de dañuy jàpp ne suñu nawle la parce que comme ni ko Xaadim Sam di waxee nee na faal ne ko lam dug maas dabante la yaa may dégg kon lam dug maas dabante la kon bu ñu yàlla dogalee ñu dab ko na nangub dogal waaw. macha allah muy adversaire boo xamante bi nii tamit parce que bëre ñett moo ci am daan wala daan wala match bu fekkee ne yow yaa am ndam si kaw si kawam dina am fu mu lay yóbbu même moom bu amee ndam sa kaw mais aussi tamit mu nekk koo xamante bi nii yàgg na si biir làmbu am lu mu def si biir làmb tey bu ma la doon laaj Bour bi bëri woon ak Mamaya bulon Boulon wala Mamadi Seras wala Fils de la wala Sokh tey Bour boobu am adversaire bii Nguer adversaire yi nga daan lan moo leen wutale ak Nguer waa sa pareil parce que Nguer adversaire la rek adversaire adversaire la xeebu xeebuma xeebuma ko dama koy jox cëram li ma war a bëre moom lay bëre ak li nga xam ne moom laa daa def yàlla di ma may ndam moom laay def mais du ma ko xeeb si benn côté du grand frère boo xamante ni ñun ñëpp si 80 bi lañ juddu waaw. Mm, waaw kay fii mu ne nii liggéey a fi am ku liggéey am doole muy grand muy petit muy lépp bu ñu dabantee fii mu ne nii c'est la même génération yooyu ñuy wax ay grand frère la yi man gëmuma loolu xoolee xam liggéey waaw fii mu ne nii leen laay ñaan yàlla may ma ndam si kawam kese mais ay grand frère ak yooyu yëpp no éliwéy xooluma ko muy adversaire boo tamit adversaire boo xam ne tamit kenn ku nekk dégg na zologaawam taay si nga xam nga ñooñu moom lu xaat rek la ñuy liggéey te lu metti combat yu metti rek lañ bëgg est-ce que yaa ngi xaar combat bu metti non bu méttee ñu man zem bëgg naa mm-hmm. Mhm. Mm-hmm. waaw yow ba tey bàyyi wala metti quoi non euh, ndox du bàyyi yoonam eh. waaw bu ñëwee samp jaaga. bu ñëwee samp jaaga lu mu indi ma takk si rek comme ni ko Tafa di waxee sunu grand <laughs> waaw. lu mu indi rek ma takk si rek. bu ñëwee déglu boppam nag. bu ñëwee déglu boppam ma déglu ko. Mhm. Mhm. xanaa combat bi combat yi passé da nga ci tiré leçon. combat bi daal ndam moo ma ñu si ñor bu nu mu lu bu ñëwee yàkkamtiwu ma si dara nag. Mhm. bu ñëwee bu ko neexee ñu leewaatoo ba mu jee bu ko neexee ñu jàpp daan lu mu indi rek ma fekk ko sab man yàkkamtiwu ma ndam laa bëgg. waaw ni ñu ma ko joxe rek baax na mais ndam laa bëgg waaw. ndam du tuuti lan ngay wax ki nga xam mooy ñoom Allé Jimbo Pape Sarr. waaw di leen ñaanal rek di leen ñaanal jàmm salaam bu fekkee tal mën mën yi yokku parce que ay grand yoo xamante ne nii la ñu yoo xamante ne nii ku si mel ni Allé sama grand bu baax la parce que bu dul am sax dañuy dëggante téléphone chaque instant parce que grand bu kuul la jantal grand. chaque jour dama woon grand ni yow laa bëgg mel parce que jantal grand nga sa xol moo rafet. di ko ñaanal jàmm ak salaam lu musum ni mu am si lu kawe njortam daal loolu laa koy ñaanal yéen ñii di leen ñaanal parce que fa ngeen jóge ñëw fii métti na trop te tewul ngeen seere ko kon dama leen di ñaanal ñun ñëpp ay frère lañu di leen ñaanal bu baax di ñaanal sama rak moor day son si samay mbir bu may dem entraînement ñooy ànd ñooy def lépp kon ñii ñoo tax may soon di woo waa Bawol di woo waa Medina waa Bargny waa reefan di leen woo ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp si combat bi sama rak yi ñoom moo jon mbay ndaw baylaat bekaay ibra ndour ñoom daaw gaa yëpp seena pap ji bi moo sëy ñoom ñëpp di leen woo ñu ñëw jàpp si combat bi ak ñoom bas mbay caane xam nga boo limee sax da juum sama rak lañu daal aw ma nu ma leen def aw ma seen fay di ñaanal sama nijaay mu yàgg fi te man man yokku parce que man aw ma lu dul ñoom ak sama yaay di ko ñaanal bu baax a baax a baax day son fu mu toll buur defal lii waxal lii nangam nangam xam nga di ko ñaanal jamak salaam di ko ñaanal yàlla fekk mu fekke sunu njëriñ daal di ñaanal sama papa fa mu ne gënal ko fi mu jógee sama tante yi nekk si kër gi fii di leen ñaanal ñoom ñëpp jàmm salaam waaw. waa ji ma ko yóbbante mooy grand amul taay si nga de ay taay si nga yooyu amu fi xam nga lan am ñoow ñu bëre jàmm ak salaam noo ko bëggee nag ñu demee ko si ni waaw. bu bogee mu neex mu neex bu bëggee mu ni mu metti mu metti loo si bëgg rek pare naa je suis paré pour tout. macha allah mi ngi noonu Bour Sine la doomu Bawol ak Medina ñi ngi koy jaajëfal bu baax a baax di remercier aussi tamit ñi nga xamante ne ñooy promoteur bi di ale ak Jimbo Pape wax dëgg yàlla ñu nekk ñoo xamante bi ni sonn nañ ci bis bi trop parce que yaakaar naa ne adversaire u Bour nekkuloon ki nga xam mooy ngeer bu Sab ñu lijjanti ko ba tegal ko combat bi ñu leen di jaajëfal ne leen yoonu ndaw du gaaw macha allah yaakaar naa ne buñ jógee fii ña nga jëm ca mbay guy gi ak Zarko waaye di leen fàttali ne leen Pape Yékini ak ki nga xam ne di moins euh, Obale ak ki nga xam ne mooy hôtel joor ñooy bëri combat spécial bi dinga fa am réparé numéro 2 di rakk si Marle ak Albarka Kayre di nga fa am aussi tamit xale bi nga xamante bi nii mooy bébé guy gi ak agogo étant d'autres wala ainsi de suite yaakaar naa ne combat yi bëri na Mohamed rendez-vous samedi incha allah fu la ci ay saadi ba maar jërëjëf su samedi 15 janvier ci stadium Iba Mar Diop la ñu fas yéene nag dëggal waxu olof ba ndax moo ne woon jeexaat foo faree doom delloo fa sab loxo waa rent DKR nag delloo waat nañu fa seen loxo ndax deuxième édition drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent loolu waral waa DKR indi combat bu mag ñaar ñu lamb di bàyyi xel lool Buur Siin doom Bawol bi la jël daal di koy boole ak ngeer bu tay shinga waaye yemu fa Ibou Ndiaye ëbbali parcelle mbooloo la jël daal di koy boole ak hôtel Dior école de lutte Manga 2 agago sàkku xam-xam mu daal di koy boole ak bébé guy Gakou Marley la jël daal di koy jox Albarka Kayre waaye ñagas numéro 2 Cheikh Mbaba la nekk ñu daal di koy boole ak Boston numéro 2 bu Pape Diop Boston. ak yeneen i 5 combats yu war a am ci bésu le 15 janvier ci stadium Iba Mar Diop ak Rent DKR. entrée bi nag nii la tëddee. tribune supporter 2000 francs. tribune amateur 3000 francs. loge 5000 francs.